xam naa moom turam wi tur wu tedd la waaye kàddu yi mu génne jëmale ko ci Macky Sall ak boole ko askanu Sénégal yépp du kàddu yu du kàddu yu tedd li yëngu ci moom am na ci loo xamante ni kenn du ko jàppe teraanga ndax kàddu yi képp koo wormaal walla nit koo xamante ni yaa ngi yëg dara ci yow ci loo xamante ni jikko yuñ la war a leemal la ci pénc mi doo waxe ni kàddu yi nee na ànd naag président Macky Sall douze ans yoo xamante ni moo koy défendre moo koy tontu tontu na diw sàngam tontu na diw sàngam tontu na diw sàngam tontu na quarante neuf professeurs yoo xamante ñu ngi bokkoon ci Pastef kon kii jàpp naa ne bu fekkee ne wax na ne moo doon tontu ñooñu ci ban façon la leen doon tontu ndax ñooñu dañoo indi ay argument mu dajj ko ci xam-xam. wala ñooña dañ doon xaste wala dañ doon xuloo mu jóg di ko tontu te jàpp naa géewu politique bi kenn indi lu nu ci biir géew bi parce que koo xamante ni day indi ay argument xam-xam argument kay mooy jëf ju ñaaw wax ju ñaaw defin wu ñaaw ba ay bakkan ci loru alal di ci yàqu loolu mooy <clears throat> géewu politique ba ñi nga xam ne sax danoo mujj dese seen ngor dëgg-dëgg danoo seexlu politique xam na ne bunt bu baax la ngir liggéeyal ci yàlla liggéeyal ci askan ndax saydul xawmi xaadimakum moom mi nag dafa mel ni daanaa ko seetlu ci jamono ab Ablaye Wàdd mu daan yëkkati kàddu yu gën a wérgal yi yu gën a diis yi yu gën a tàng yi di ko jëmale ci Ablaye Wàdd te ab lay Wàdd lu mu néew néew xaw na ko mën a jur te loolu sax dama ci jàpp ne moo war a yàlla mën na koo jur doom la ci moom tey bu wëlbati ko di ko dénk Macky Sall di ko jëme ci Macky Sall ak fi Macky Sall toll di njiitum réew ànd ak moom douze ans mu def ko ministre de conseil lan moo doonoon rôle ci kanamu wala ci wetu Macky président Macky Sall lan moo ci doonoon rôle koo xamante ni conseil lan la wax douze ans ñu lay fay ministre xaw ma lu leen di fay xaw ma trois millions xaw ñaata wala xaw ma un million xaw ma lu mu mën di doon rek nan ko multiplier douze waxtu wu nekk muy fay muy xëy di fayeeku sunu xaalis te du gis ki muy conseil demut ci télé yi wane li fi xew ak senegal ren euh, bi président Macky Sall yore réew mi léegi lin fi jànkoonteel ci ay mettit ak tiis mësuñu koo jànkoon lu ko jiitu moom fu mu nekkoon ci wane xam-xamam dédicacé naa ko cinq livres livres yooyu ban moo ci wax ci développement ban moo ci wax ci indi paix ban moo ci wax ci loo xamante ni solution la xawma ko ndax liiruma ko bu fekkee dikk na ba ànd te ñoom dafa mel ni dañuy bëgg a feeñ nag ndax démb gis nga euh, fi nga xam ne fi la Diop saar demoon ak premier ministre gis nga la fa xew te loola bu doon waa Pastef la ña ëpp genn wàll gépp ci kaso ba lañuy la ñuy duggi ndax mayeetuñ leen sax ñu def lu mel noonu fekk nañ leen fii bi président Macky sàll wootee dialogue ñu dem ci seen seesu décc ki ne dañ fay def seen réunion pour def seen dialogue ñu fekk leen fa tas ko waa APR mën a dugg fii bërki démb ñu dem ci pale dem fa ne dañuy sargal président Macky Sall euh, baare foofu fépp lii nag li muy jur mooy day indi désordre cim réew ndax bu fekkee yow da ngaa am àq yoo xamante ni a awma ko nga mën a teg kàddu yoo xam Moustapha Diakhaté mën a yëkkati kàddu yoo xamante ni man su ma ko yëkkatee ku bokk ci Pastef keneen ku ko yëkkati sa kër dootoo dootoo fa dootoo fa naane café wala dootoo fa ndékki te keneen man koo def ba noppi di añee ci wetu palais wala muy reeree ci këram su Susan Camara wax yu gën a garaaw yooyu yu mel nii nag day indi désordre moo tax al amaana mooy numtu al addulu mooy maanaam maandute maandute mooy li gën ku ko sàggane cim réew rek sàggane nga lay ëpp xolu réew ma mooy li gën a mën a yore am réew ku ko wisaare rek wisaare nga réew mi Abdou Aziz mii nag jàpp naa ne bu amee xam-xamit lii gunge xam-xam moom nekkul ci moom muy ak dal teey ab yar ak teggin ak façon message bi ñuy waxee da boo gisee li muy wax da nga yëg ne li muy wax ci xol la koy waxee ku mer ku nekk boroom xam-xam bu meree war na xool nan lay mere balaa wax na xool nan lay wax te boo xoolee wax ji di nga yëg ne lim ci wax ne président Macky Sall wax ko baat yoo xam baat yi tuumale yoo xamante ni mën nañ ne lii am ci réew mi lépp kon moom loxoom génn ji nee na ko bàyyil pexe bàyyil pexe te baat yi daf ko waxee ci façon waxin woo xamante ni waxin la wu wu diis a diis ku xam balaa ko wax wala nga xam que ma wax di nga xam ne wax ji moom loxoom a ngi ci biir bàyyil pexe lu ma lu lan la di ko dëkko bàyyil farba si ngoom ngom ba pexe lay def pexeel na la ci deux mille vingt et un ba la ci xeex ba pexeel na la ci soin première deuxième ba nu def la nii na la bàyyi waxal farba mu bàyyi pexe moo tax Ousmane Ngom Ousmane Sonko doon wax ne affaire Adji Sarr bi complot la te lii li lay wax ne la pexe mi ngi ci mën nga yow mi ballul ay wax ak di xool wax ju jëkk yi Farba Ngom bi ñu demee ba Ousmane songo ñu war ko àtte ñu ne la première wala la trente la wérdi bi daanu fan yooyu waa APR daje far ba ne ñun am na lu ñu xam nan noppi dina am lu xew fan yi ci lan def déclaration ne Ousmane Sonko condamné nañ ko deux cent kon Farba moom xamoon na loolu lu jiitu muy kii beneen bi ci des Cheikh Bara Ndiaye waxoon na ci far Farba ne Farba daanaka moo xaw a yore pale moo ko yore moom mii bu fekkee mën naa toog di joxar bi far Farba Ngom ne ko Farba jàngul français jàngul arab xamul dara far ba mënta tari ina anselnaahu mënta tari xul yaay alkaafiroon mënta tari saar bu ci toppaat ina axtay nakal déedéet bu ci toppaat fàttewuma suura bi ci toppaat fàtte naa ko bu gàtt ci yu gàtt yi la waaye lu ànd ak lu mën a am rek mu ne ko mënu tari yooyu loolu bu demee ba far ba mu mënu tari lii te far ba bu ñu doon wax deuxième kan mooy deuxième position ci Macky Sall kan mooy deuxième am dañuy wax ne far ba la amul luy dox ca foofa te far ba amu ca baat amu ca nangam moom lii mu wax ne far ba bi muy bi muy def déclaration di jël kàddoom di wax fekk fa far ba dañ ko koo nettali moom ñemewu ko ñemewu ta dagg président Macky Sall jox ko kàddu muy wax te far ba la tax mu ñeme ko am na lu mu sañ ci bis ba lu mu sañ ci président am na lu mu capable foofu kon ñoom ñii am xam-xam bu ñu fexee ba deltu ginnaaw ba far ba mën leen a jiite mën a conditionné mën a dugal mën a génne moom conseiller bi ban njariñ la amoon ku mën doo feen def na ko jàpp naa ne bu yàggut la génn ne day doon candidat ne président Macky Sall sénégalais bu nekk leb na sept cent nangam mille sept cent nangam mille ci sa tour walla lu ko ëpp kon président Macky Sall kii wax na Macky Sall baat boo xamante ni bu garaaw la Macky Sall goreel goreel jàpp naa ne ñi ñuy yóbbu kaso ci danoo offensé président lii lu ko gën a doon offensé gara xaw ko <coughs> ndax loolu nit lu nekk mën naa nekk ci moom ñu ne kuy saaga la kuy ku kii la waaye am na baati xaste yoo xam boo ko waxee nit dañ laa war a dóor juróom-ñett fukki yar te lii mu wax xaste la bàyyil pexe goreel li ma la defal dama bëgg jël réew mi dëgg la Farba sax dafa yàkkam ci mii kii wax dëgg yàlla du jàpp naa ne mm, mook Sanjoogu bu ñu demoon xëy bu ma Sanjoogu de damaa bëgg a wax rek darajey saa njóogu fi mu toll waaye xeebuma saa njóogu ba bëgg koo tëkkale waaye damaa bëgg waa darajey saa njóogu fi mu toll ci réew mi su demoon ak saa njóogu wala ministère am yooyu wala ñooñee nekk ca affaire kun ci boole woon ak saa njóogu ba muytu saa njóogu jël réew mi moo leen ëpp euh, gën a yaatu xalaat moo leen ëpp yi analyse moom la réew mi gën a xam ci ñoom moo gën a liggéeyal réew mi tamit ci lu séree ci moom beneen bi ci des wax naa Ousmane Sonko gañale te moom bu yàggul rek invité nañ ko fii ci télé TFM bi te ba muy wax da doon défendre ne wax ñi toj kër jàmbur ñi yàq kër kër mooy nangam kër mooy lii kër mooy nangam pourtant mënoon naa wax ne booba de lii dal Ousmane Sonko ak lii xew ci réew mi ay pexe la lu tax boobu waxu bi mu meree la sogo nett le ne lii ay pexe la te nii mu waxe président Macky sàll ne ko bàyyil pexe day wane ne moom mi ngi won ci pexe yi dafa mel ni nag secret as gor moo koy téye danoo wax ne yaa na day wax ne secret soo ko dee nëbbu yëgal ne boo ko waxee ngelaw li ngelaw li dina ko wax taw bi taw bi dina ko wax suuf si waaw ndax ki nga ko wax sa xarit bi nga ko wax xarit boobu muy génn fi mu toll li doon nëbb lépp dafa mel ni Abdou Aziz mi génn na ci lu bare bare bare eh, wax ne ko yow ci yoon koo xamante ni yaa ngi nii téye ko mënoo fexe ba yóbbu ko kaso mënoo fexe ba tëj ko te man foofu dinaa ci taxaw Ousmane songo man ba keramay gëm mais Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi lu ma jaaxal lay doon néew ma du am de waaye li ma xool ci décision ak ni Ousmane li li li li li waa APR ngëbal Ousmane ak lin ko jàppal ak lin ko ŋànkal ak lin ko lin ko lin ko téyel jàpp naa dogalu suñ borom ndax président Macky Sall mënatut a dem fenn fun ñu ko yuuxoowut ci biir réew mi ci bitim réew te yooyu du ko baale 21 mars bi du ko baale gis ngeen bi mu waxee xale yi ne leen dégg naa seen message lu mu ca tegaat ay fan dafa wax na li amoon du amaat loolee mu ngànkoon ba ne li am du amaat moom la ngànkaat ni lii amaat ñii <coughs> oh, nu sonalee président Macky Sall ak ñii nu ruubee ak nguuram ñu jàpp ci waa Pastef lu toll ci sept cent nangam man góow ne Ousmane Sonko bokk élection lu ma bett yi may bett yépp lii ci lay gën a gën lu ma yéene woon mu am na nag lu ma yéene lu ma xalaat lu ma bëgg tamit mu am la mu dem élection ay wax dëgg yàlla sama xel moom wëlbatiku na bu baax a baax baax xanaa benn président mag Sall xam ne topp Ousmane Sonko mii ak topp waa APR gaayam yii dina ko indil woy woo xamante ni du doon woy wu rafet mu jéggale ngir yàlla mu bàyyi ngir yàlla ngir aw woyam des fi lu dul lool rek waa APR fi ñu toll nii nu tàmbali di yëngatu ak lii xew ci Pastef danañ ko yóbbu foo xamante ni aw woyam mën naa bañ a rafet loolu nag man su ma doon mooma duma ko topp duma liggéey ba fii ay ati at ay nit di ma ko yàqal yoo xamante ni yu ndaw ay nit di ma ko yàqal damay bàyyi ñëpp dem ma am sama woy des fi samay émence des fi euh, loolu woykat bi doon wax ne maanaam ku bañ a gis liggéeyub Sëñ Abdou Lahat bul dugg Touba boo duggee di nga ko gis waaye moom na fexe ba képp ku bañ a gis woyu Macky Sall bul wër Sénégal boo wëree APR bi bu wëree Ila Touba bu wëree yooyu yëpp sa loxo dina ko yooyu nag lim koy couleur mooy fexe ba woy wi rafet ki koy woy am conscience bu rafet loolu nag dañ ko koy ñaanal moom président ndax yéene nañ ko ndax xam na ne Sénégal la ko doon defal te du ko yóbbaale kon lépp lu ko nar a yàqal loo xamante ni ci waa këram la jóge wala mu jóge ci ñeneen ah loolu seetaan ko wala bàyyi ko wala xiirtal ko te loolu wax dëgg yàlla fi mu toll daanaka bunt boobu daf koo dëgmal bu toppee Ousmane song ci nii mu mel nii ak lii ko yàlla defal ba moytu dana àgg foo xamante ni dana mujj aw woyam du kii te jarut topp. man li ma jàpp ne mooy jërut topp man li ma jàpp ne moo jara topp mooy ñëpp mu jéggal leen waa affaire yi di génn ñooñ ñëpp génn di ko wax na na na mel ni ku leen xam ne te xam ne yàlla moo rëdde noonu jamono nit ñi tamit daa am ci ñoo xam noonu la leen yàlla bindee moom mi ngi doon wax nan ñaan ci njëkk waaye ñu ngi koy ñaan ci njëkk mu teg lépp loo xam lu koy rafetal la luy tax aw woyam dem la ndax kii dafa àgg ba ci na ko bu la sa soxna fexee pexele pexelee bañal bu la sa doom pexelee bañal te lii lépp day sulli lu bare bare bare bu leen toppee ci baat yi ñu koy wax wala yi muy dégg de ba jóg euh, dërëg ñoom du du am woyam du kii de woy wi néew ma du rafet de waaye woy wu këpp gaal lay doon kon woy wu këpp gaal lay doon ñu ngi taxaw fii di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine